Seydina Muhammad Seydina Muhammad Seydina Muhammad Seydina Muhammad xayril wara man xaadali xidmatuhu وصورا ثم صلاة الكتاب مع الزفه مسبي غتاب سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته وصورا ثم صلاة الله وسلامه على الذي مني لو أخلام سيدنا أذكر لي خدمه محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والحسا وجنتي والي وسبيل أبراري سلالي والمال بتكراري هسا وخسدي خدمة تور أي نبي بها كما تبرو نويت مزامي خدمة تسر مصفان بكفيت ما خدمة خدمة خدمة من بجايك فانسا ما أحمده الله خروج من درر وكل سوء وحناي وخرر أذكره شكرا يجود سيدان مثل ولا يجودني كيدا حمدا وشكرا لا سماء برورا رب الورى وسهسا خرورا تغبنا لسي مخدمة مسليا بيان الله من خدمة مرتجيا كوني خديما سنبام موي كوني كوني خديما أسنا والنفوس بما خلصنا ملتمسا من مالك أن ينفع بعلسي يريد أن ينتفع جعل الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلامه يصفى نصرا مباركا يقي أسابا كما لسي كبدني أسابا جهرام جهرام جهرام جهرام شيخ إبرا فال نلني مغر شيخ إبرا فال جهرام جهرام جهرام جهرام شيخ إبرا فال نلني مغر شيخ إبراهيم فال شيخ إبرا يا تخ بون بون سولو غير يا نو te daa waxoon rasulu Cheikh Ibra Fall yaan o tagga leeg jàppi jaam faal ngir yo aan won ko dog sun buumi jaam Cheikh Ibra Fall yaan o tagga leeg jàppi jaam ngir yaan won ko dog sun jaam Cheikh Ibra Fall yolan baɗil fa ngay jaar ngir yo aan won sëriñ Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ sëñ Fallo sëñ Fallo sëñ Fallo sëñ Fallo sëñ Fallou borom ndindi ana sa pay sëñ Fallou Mbacke sëñ Fallou Mbacke yi borom ndindi sëñ Fallou bay Alaaji Baara sëñ Fallou faddulun hasimun faarisun mbàkke ngu suube la kii mooy mbër te mooy wasila lor dem na xeewal baawaan dutu jeex abadan ku sopp sëñ Fallu Mbàkke ku sopp sëñ Fallu Mbàkke ku sopp sëñ Fallu Mbàkke xeewal wër lor da du sëriñ Saaliw sëriñ Saaliw sëriñ Saaliw ana soppey sëñ saaliwu way leen ma saaliwu ku mu jaaral jógal taxaw ana soppey sëñ saaliwu ku mu jaaral sa loxo ca kaw ana soppey sëñ saaliwu borom lagan borom ngejaan borom daaray ñoro ana soppey sëñ saaliwu xifatunu maratunu ñàkkatunu yor nanu sëriñ Tuubaa ak doomam yi ñoom ñaa fa dem ba jeex xayru min dunya wa maa fiha jamii